ay simili yu néew ñu jox leen baat yu wér te wóor. ak Dakarnet daara du la rëcc ci réew. Pawlish maa lay nuyu. maa lay baax baax. président tey la wax waa Thiès. gërëm leen sant yàlla baax a baax. Pawlish bi nga gis fii nii loo ci wax. ah ambiance bi nga gis fii loo ci wax. Ah, ah, ah, waali la nag. waali du du ku ndaw waali la waali les centres du peuple la waaw les centres du peuple la li xew di peuple les millions du peuple les jantal di peuple les rafet bëj di peuple les xaaj di peuple les oto di peuple les gën a jantal di peuple. sànq yaa ngi wax wurus wax ngalam yaa ngi wax lu doy waar. li tax waa Thiès am sens fi mu génnee ngalam génnee fa urus génnee fa jama génnee fa diamond fa la ñëwee ci Thiès ba pare li tax waa li mu way loolu loolu lépp da nga am moo tax way loolu. su dëgg ba pare dafa assurant man daal waaye daal mi ngi noonu daal. da koo am euh, staff bi am ko. staff bi am ko. suq yi am ko. suq yi surtout maa suq a neex ci àddina yaa suq waaye neex suq waa neex da ngay daw oto bu rafet. ci suq bi da ngay sangu piscine. ci da ngay yëg avion. ci suq da ngay euh, am ay ger. ci suq la neexee takk ku la neex. ci suq bi da ngay am xaalis. ci suq bi sa ko teew xaalis. ci suq bi nga mën a fonante. ci suq bi mën a BCP. ci suq bi gën a xew. ci sëq bi yeneen ñi nag moom lañ may ci sëq bi waxtaan daa xasaw am kew am tol am mattakooy am lacciri am woggu am ay bisaabu tooy bisaabu lacciri ay njóorndi putain de léegi ndeyloo ndeyloo laa gisul ak yow moom tamit. ay instant bi dafa dafa dafa indisposé moo tax mënut a ñëw. biram ndeyloo dafa la ah, dafa indisposé en plus biram day métti. moo tax mënta ñëw. loo na la bopp de bu indisposé da la koy wax. nekk ma bëgg ko bëgg koo def jabar lu ko dal dama ko war a jënd ovule jënd ko nana jënd ko freedom pour loolu lépp ko dalee mu mën a lijjanti boom jënd ko gel intime parce que sama jabar dama ko bëgg je t'aime je ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar net dara du la rëcc